gars yi ngeen yaatal nag ah. te jimlee na kii rek ñii li ñuy liggéey moom. tubaarkalla li ngeen baax kon ñëw na ahma na bi li ngeen baax kon ñëw na kenn la dem kenn la maaje kenn la wàllee Cheikh Abdoulaye Marema mooy li ngay borom kër Paa Torok soxna Dieng Paa si laab door Matar Fouti Camara mi ci taaw yu baax yi am sa soxna Dieng Abdourahmane soxna Dieng Mbacke soxna Dieng Balla Paate soxna Dieng soxna Dieng si la Libaas ma Paate Ndumba Dieng Maam Siin ba li ngeeru baa kon ñëw na ko sa yaskiya sa yaskiya la ñu jël ni jaay nañu Touba Cheikh Abdoulaye Marema bu yàq ay waxam defar ko sëñ Bamba ni am naa yaakaar ci ni jaay ma di Touba Cheikh Saliou Fall Diakhaté moom la suñu Bamba ni Saliou bi ak jiw bi daje ni jaay ma di Touba Cheikh Abou Madiane Soyib bàyyi soxna Baale Muntaxa Mariama la seen yaay tub bokk ndeyam Faati ak Aysatu sëñ Bamba kenn ku ci nekk ci ci taajal nga ko ab reer moom la seen seen baay tub ma nga doon suñu dëkk te mooy borom dëkk ba ma sat sat toog ma sat faa daa ba dikk xëy na ma ne ma ne maam Ngoy tubaarkàlla gane si wu ci dëkk bi dëgg fii dëkk te nag ku ñëw ci wilaa bi ñëw ci pale bii xam maam ngoy nga may leen reetaan deuxièmement yaru la <laughs> waaye troisièmement wax te à travers le monde entier jaxase ndox du la tax a soppi ci nekk wàcc nga nga gën a naw ci Sénégal Birame a ci Sénégal kenn ku ci nekk yow yaay idole yow la def Allah di Cheikh Fall te tubaarkalla mu ne nga war leen loo xam ni dañ koy roy bu déwénee nga bàyyi loolu demaat ci leneen ñoom nga gëm ñoom nga xam ñoom nga faale ñu lar ñu soxla deuxième attaque deuxième attaque ma ne maam ngoy sëñ woo la ko fayee tubarkalla ah du ñëpp mën a am ku liggéey liggéey bu baax doo ko am kii yële Seex Saali fan dafa def sama Gambie yaa ngi nii Gambie am cool Gambie speak nee na ñaari oto la ñu dem sax année. waaye yow yaa ngi koy dugal ban année. yow Pape Ndeye dañu ko béy def placement. waaw maa ngi gën a kontaan. Gambie yooyu chaque année oto la ñu def ñoom ñu jënd seen oto fay seen oto màggal ba pare bu ñu màggalee ba ci suba ga dañ togg ébé dañ togg supp kànje loolu ñoom chaque année ñoo ko jël en charge mënu ma leen fay dañu bëgg ma mu mu rafet Angleterre Mari Njaay dina ko jënd yoon yow yaa baax yow yaa baax wala ay da seen compte waaw ma leen fay bu ngeen arrière si lay gën a daax di leen arrière may ko distance. waaw jàmbaar maa ngi doon yaa ruus nii. cim est-ce que di taloo. di def lépp lu ma saf. dafa taloo di felaale. waaw waaw di felaale di sànneeku. yaa ma ko jaral sama jabar ja dama kontaan. kontaan naa ko waaye di nga sonnee ma nekk. sànce bee ma jàpp. sànce sa kër ba mu mel ni jàmm ak salaam. waaye da ngay sonn doo nelaw. ba mu mel ni suun ak bëgg. doo nelaw. <laughs> keroog bu ñu demee bu fàtt keroog bu ñu demee gàcce nga la bala bi Eh, viens ici. Fii laay taxaw di xaar nag. loolu daal nañ liggéey nii rek nañ liggéey nii rek nañ liggéey rek liggéey rek nañ liggéey rek nañ liggéey rek xoolal foofu bu ñu am image bu baax nañ agee may leen ñu liggéey ñaar bur kenn na mu ko xawaaye sa bopp bëgg gis ak moom ndox bi ma la gisee ay ca ñu ñëw ci deuxième attaque parce que bu ne ma samba bu ne ma samba. samba génn samba zoomé rek rek arrière rek zoomé waaw. waaw borom sinap yi dañu mën a leen rek.